jóg nag pour appuyer communes yi gis nañ ne communes yi ñu ngi gérer presque lu ñuy wax quatre vingt pour cent suñu territoire amuñu outil amuñu assistant technique parfois bu ñu bëggee cadastre dana dana yomb bu ñu bëggee les services techniques day day jafe ñu ne nag ni nañuy ñëw encadrer les communes ñu am une cartographie maîtriser seen espace communal ba délibération yi nga xam ne ni moo fay jógee ñu mën a am des délibérations sûres nga xam ne ku ci yor sa délibération dans le cadre du projet nga am tout ñu jaar ci processus bi yëpp man nga wax ne yow man am naa papier lu leer ndax lu ko waral dañuy permettre ñu maîtriser espace aujourd'hui da ngay am une délibération yow mi am délibération sax doo xam fu terrain bi nekk wala ñu ne la sa délibération bi jox nañ ko keneen léegi délibération bi ñuy am nag derrière chaque délibération ñu lañu bëgg saa bu génnee mu am un numéro d'identification cadastrale muy carte d'identité